waaw yéen a ko gis ba léegi Saline Main school students yi ñoo nekk di strike ne dañ ñiit seen teachers yi kon nag gars ñi ñu ne dañ ñiit seen teachers yi ñu xool rek fan la xale yi di dem right now waaw yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV live and direct fii si kaw tali bi nga xam ne nag mooy tali uh, former APRC bureau bi foofu leen nekk right now students yaa ngi mer ñu ngi say ñu ngi dem yéen a ngi gis gaay nii ñu si kaw tali bi di wax ne dañuy seen teachers si baag so ñu ne 19 teachers leen 17 teachers leen daaxa seen principal bi nga xam ne moo tudda naka Mr Keita waaw Jamba Keita moo daaxa li nga xam ne nag mooy teachers so ñom nak xalé ñu ne ah, su gaay yi té grade euh, nine dañu ne xalé yi dañ féel way fék xalé yi féelun ticca ci ñoo leen nangu ta jang waaw ci si ñoo nangu jangul ci ci la ci li leen ci staff room bi di sant sa sa amul fen di leen nangu jàngal nit ñi ci ci la leen nangu jàngal nit ñi leen nangu jangal nit ñi ci staff room sa sa amul fen leen lay def lii nii daawoo ni ni nii daawoo ticca gën a a ñu ne den ñi seen ticca si baax ñu ne ticca si dañoo nekk si classe yi mais de si staff room di ruuju talun school bi yéen a ko gis mbokk yi Gambia ñu leen wax jamono ji xale yi say neen fu mu nekk nii ñi ti den xam seen xale yi daal ñu ne ñoom ah, li nga xam ne mooy seen principal bi na génn si school bi maanaam ku ees la si school bi ñëw bu ko génnee 70 teachers benn bés xale yi ñu ne ñoom duñ nangu loolu ñoom duñ ko nangu dangeen ko nangu na doo leen ko nangu. duñ ko nangu duñ ko nangu. non moom it la keeta uh-huh. bu ubbee school duñ dee am teachers. Mm-hmm. yeneen saa dañ dee toog si si si classe bi. pour dee duñ dee am benn teachers. Mm-hmm. waaw monsieur Keita mi ngeen a dégg rek mooy principal school bi ñu ne bëggatuñ a gis kooku mu génn si school bi xale Talinding Upper Basic School lool la gars yi wax ñu ne den ñi seen teacher si baag soo ñu ngi nii si kaw tali NDI bi di dem xaw ma nag fan la ñoo dem jaa fan la ñoo dem. gars yi ñu ne regional office. regional office kon nag gars yi ñu ne ñu ngi dem regional office naa ne fin ku joxe seen complain xale yi den xam regional office de gaa ngeen dem bu boobaa mbokk yi comme ni ma leen ko waxee Gambian Talents gën a seetaan dinañ leen indil yëpp live and direct foo leen ko buggee noo leen ko buggee yëpp leen leen naa indil kon nag mbokk yi aha booy lu xew Mm-hmm. waaw. den bu ko am result si baax maanaam grade nine students si ñu paas kon nag boo koy yéen ko gis xale school yaa ngi nii ñu ngi wane li nga xam ñoom moom lañ bëgg a ku Gambia defal leen ñene ngi seetaan Gambian Talents TV live and direct ah, foofu noonu si Amérique waaye fii biir Gambie ñu ngi gis suñu students yi yaa ngi génn ñoom ñëpp a ngi mobilise di wax ne neen ñi principal bi out of ñi la jël bi principal bi di Mr Keita moom lañ bëgg a mu génn bu nga def noo tudd Abdou Aziz naka Abdou Aziz Diakhaté naka nga gisee xale yi nu ñoo mobiliser seen bopp. waaw. te yaa ngi giree ñaata. nine. Ora malu la be tutun janga be. Ki bola si kan jangu. bola si kan jangu soko de wa do na ngofal. so na si lo. If you say that we are not lying, just go home. It's not our business, it's not my business. Den so na si wa. Ando wa le sa. Den so na si wa. Sister yi, ni ga mun dara. Isa wa. Solution. Wa. We are not this global lesson. And we are great. And we are great. We are great. yow noo tudd ah. man maa ngi tudd Modou Lo. Modou Lo soo soo leen fiiree lu ñu dee wax. suñu ko defee waxal. waaw am na ñëwoon foofu interview. mu ngi wax gànnaay if they mu wax gànnaay ñu am normal lesson. well we are not having normal lesson. is that we need aggregate six. yes. principal yi baaxul moo tax mu amul tijjasi di kii. mu ngeen tijjasi yoo xamante ne gars mënul kii gars yi ñu ngi classe sax dafa doon speak correct English. danañ ñëw ne ñu copy gars ñu dem. loolu xanaa loolu mën nañu may na rek. non non our exam and our exam is only seven months moo kan moo ah, am idea bi ku ngeen génn ngeen wax ne yéen ñii dafa lay seen teachers. parce que doon wax mu jël teachers yi mu yóbbu gars police te loolu nekkul reet moo amul benn reet mu génnee benn tija moom ñu am reet pour génne ko ñoo ñu am reet pour génne tija moom amul reet pour mu génne tija amul reet pour mu andi tija soo lu muy bind tija soo xamante ne teachers yéen a ngi gis ñu ne we need a teachers waaw waaw no more Mr Keita all right daw si kanam xoolal yéen a ko gis xale school yaa ngi dem ne bu dañoo daw rek tey journaliste sax dañoo daw ah xale yaa ngi say kon nag Gambia yéen a ko gis all right sis nga ne naka <laughs> Koutiassi. ñu fekkente ne ñu asu suuf Koutiassi. loolu bëgg a bu sax lañ ñu mel. yaay ngi toog et puis dañ ñu jox lañ. ñoom tam daal ñu ngi jóg di liggéey di woo pour ñu rek pour ma bul xiif. ñu mën leen ñu jàppale ëllëg. loolu la six day one we are not learning. We've been sitting in this school and discuss every every time meeting meeting meeting meeting. So we

waaw moo koy kon moo leen ko waxee rek gis ngeen gars ñu ngi daw ñu ngi nii MDA road jamono ji ah dégg ngeen xale yi ni ko waxee ñu ne teacher si dañoo nekk si classe bi di powdu teacher bi mi ne ah ñoom mënuñ leen a jàngal principal ba yóbbu ne leen police waaye taxut ñoom nag fu mu nekk ñu ngi grade 9 te fu mu nekk nii ku di am lesson si nu ko gars yi waree am gis ngeen ne ñu ngi ni si kaw tali MDI bi mu ngi fees del xale yi yëpp ñu ngeen dem nag ñu ne regional office la gaay di dem lee seen complain kon nag yi a ko gis xale Gambie yi seen bro naka nga def ah sis na nga def how a you waaw dafa am ñoo xam ne nag bëgg interview hello na nga def ah what's your name waaw kini nii gars yi yóbbu même parce que lu lu tagay di waree na def loolu. suñ si tasi leen bugga. parce que exam baa ngay ñëw jot. waaw waaw dem fi gis ngeen ko school de jamono ji office la ñoo dem waaw. sis na nga def ñu ngi gis say lu xew. non booy yi ñoo ma seelo ak pro suñu problème yi tijjasi la principal bi dafa génne suñu tijjasi te ñoom ñoo qualifié ñu yóbbu ñu bàyyi fi tijjasi yoo xamante ne man man sama leen tamit bari def eh, ministre of RT ga ñu gara war a fay xaalis bu mut tijjasi ñu ñëw ñu jàngal ñu soo dañ bi ko pour tijjasi ñu ñu jàngal ñu am na degré nen examen mu ngi ni si koona bi mu ngi ñëw loolu moo tax soo dañ bi ko dem jàpp pièce So then, dañ bëgg a dem ñu strike daañu indi ñu suñu kat baat dañ bëgg a jànga dañ ne dañ bëgg so we want to be the future leaders of, the, of this country that's why we are doing do you think this will have any impact on you yes <laughs> because if you go and if you go and display they they they bring our teachers back but if you don't visit at the school no land they will bring our teachers back they know that something is going on in Teleniko basic school so that's why we are doing yes it's true we don't do this have our teachers. We are guys, can you never believe that? Students are going to How are you? What's your name? I said Rijalo. What can you tell us? Why you never get Sarah Yaginina? Ah, do you think this will have any impact on your life? Of course. All right. If we don't do this, they will not come back. They will not come back. all right ah, kon nag ah, sista nga def ah, noo gisee lii. lépp la ñu assurance si teachers yi baal parce que ñun ñu ngi nii. Hmm. nekkuñ di jàng xamuñ ëllëg ne. ñun hmm. man xamul hmm. naa nekk vice président fii xamul ndax mun na mu nekk first lady. kenn xamul loolu. kenn xamul loolu loolu moo tax ñuy def lii. dañuy fay suñu waay suñu yaay every day ñu ngi jox wajal. di liggéey ñu ñuy jox lañ. ñu ne ñun suñu nekkee xaalis bi nga xamante ne barkewul. waaw yéen ñi nga xam ne nag yéen ay text right now ah, ñu ngi leen gis ki nga xam ne nag suñu oncle la di Ibrahima ah, moom mi na ci démocratie waaw lii la démocratie mënal Gambia xale yi jóg neen mag yi say neen xale yi itam nañuy jóg ah, bu boobaa rek yéen a ko gis students yi ñeneen ñi sax ñu ngi taxaw si li nga xam ne mooy cantine si taxaw ko ut lekka Gambian Talents nag moo leen ko indi live and direct gis ngeen ko ñeneen yaa ngi taxaw di ut lu ñoo lekk métti na de depuis Talinding school lañ joggé ak gaay ñu ngi ni ñu ne ngi démalé ah fi nga xamné nak moy mooy ñi ñu ne regional office So ñu na ñu gis gaay fu ñew mujjé nen na ñu ah ki nak nga xamné ah mom mi li lii good move la waaw yi a ko gis train yaa ngi nii bi yëpp ngi block moto yëpp ngi block ñëpp ngi jóg ku dem fi nga xamné student yi fofu la ñoo kon nak bu boba ñu daw xor fan la gaay di mujjé waaw gaay yaa ngi ni nak bu de GATS la gaay taxaw léegi yaa ngi gis GATS ñi nga xam ñoy security ñom yi ñoom tam génn neen soo neen xool students yi fan la ñoo mujjee waaw Wow, yun na guy. Right now, yun yun buntu jiyaat ya. Xale yi school yi ñëw nañ taxaw fi nga xam ne mooy jiyaat ñu ne dañ bëgg a wane li nga xam ne la gars xam dañ bëgg mobilize. so yéen a ko gis security officers yi ñu ne gars yi ñu kaam xale yaa ngi kaam this is the current situation right now yéen a ko gis xale school yi ñoom ñëpp a taxaw security bi ñu ngi leen a kaam down waaw this is very nice yéen ko gis security officer bi mi ne na prince xale yi ñu try ñu mobilize seen boppa waaw liggéeyam rafet na lool lool lool thank you very much yéen ko gis security bi ñu ngi kaam xale yi down ne na gaa dal na gaa teey xam ne lii dara fayit ko tey ak yar rek mu leen a mën a ngeen a baa ngi ne ñu ngi nii laay fan daara biir théâtre ñu ngi xaar gars yi ñu seet fan la ñoo tënkee fan la gars yi di em Gambia géej na ñoo gis lu ni nii xale yi duñ daan di wax waaye jamono ji na xale yi ñu ne dara ñorul leen lu dul li nga xam ne mooy seen jàng bi seen principal bi jogut ko dimbale leen 17 teachers leen daaxa si benn bés 17 teachers yëpp leen daaxa soo sécurité si ñoom ñi nga def seen liggéey ñoom dem leen si biir ku seet lan la ñoo wax ak li nga xam ne nag mooy administration bi soo ñu xool xale yi fu ñoo dalee ak lan la gaay di def kon nag Gambian Talents TV rek a leen munal lii ñun ñoo leen a indil lu leen kenn indilut ñoo leen a jox lu leen kenn joxut lépp loo xam ne rek gis ngeen ko Gambian Talents la moo jógee xale yaa ko wax ñoom ñu ne den soona den taayi den dama seen principal bi nga xam ne mooy Mr Keita moom nag dafa daaxa 17 teachers at once teachers yooyu noonu nag ñu yóbbu leen fi nga xam ne nag mooy provinces Aïda li ñuy la xale school yi wax. waaw ah, xale school yi li wax ak nañ génn see doy na waar Fatou Samba jël 17 teachers yóbbu leen si province si nga indi leen ñoo xamante ne nii leen ñeneen di leen jaay order waaye loolu tamit neexul si xol moo tax gars yi si si biti. ñu ne ah, teachers sa sometime da ngaa gis yeneen teachers yi nga moom leen bàyyi si school bi. Mhm. dañoo nekk di ruuju. waaw ñu di ay brown. Mhm. soo leen ooyee leen kaa waiting for the Kalining school students to mobilize themselves. They are sad, they are feeling hard. The situation is very tense at this current minute. Here is what we have for you. So, am na ñoo xam ne mooy school privé si jóg neen ko wax li nga xam ne mooy euh, teachers si ñun daal jàppale li nga xam ne mooy xale yi xale school yi nag jamono ji ñoom ñu ngi xaw a euh, tense euh, bro na nga def noo tudda right now foo la nekk nii aha foo la nekk jiateen foog nga ne lii dina leen amal benn impact foog nga ne lii dina leen amal benn impact waaw ñu ngi gis am na keneen ki nga xam ne nag ah, beneen bureau mu ngi wax ne bu gaay wax ah, yéen a gis loolu noonu su ko defee rek ñu ne lii lañ leen a indil ah, fu mu nekk nii non non non bureau moo wax bu mu wax soo ñun suñu liggéey rek la ñuy def na rafet. xale yaa ñu tax a jóg société baa ñu tax a jóg lépp loo xam ne lu ñaaw la si société bi. incha allah yéen ko dégg yéen ko dégg We don't need, we need our teachers back. We don't need Mr. Cater. We don't, we need, I don't need our teachers back. All right. Don't need some teachers back. this is what we have for you Gambia yéen a ko gis waa GRTS tamit ñoom ñu ngi génn taxaw ah, just rek ku xaar li nga xam ne nag mooy situation bi mu kaam ah, amul dara lu ñu ci munal Gambia lu dul wanal leen li nga xam ne nag moom la ñu gis GRTS seen ay staff génn si neen di xaar li nga xam ne nag mooy xale yi ah, bu boobaa rek ñu xool fan la gaay di mujjee ak naka la ak nan la Gambia waaw fu mu nekk nii xale yi ñoom ne ñu ngi mobiliser sante su ko defee ñu ngi xool naka la fa demee ak naka la fa du demee ah bu boobaa rek yéen ko gis a ndoor Gambia eh, lii lañ leen indi ma bàyyi leen suma naataango moom wax leen tuuti rek ay dama bàyyi la nga laajte xale yi few questions janga nanga def noo tudd ah wala bro nanga def you need your teachers why do you need your they are important for the school. They are important for the school. thank you very much. so nen xool uh, fan la gaay di mujjee. nen xool fan la ñoo yang Grade 8. Grade 8. Okay. So, Mr. Keta, what do Keta, speak I want to talk. Come here, I will talk. come here, I will talk. This Wednesday, we are not planning. no, waaw soo yéen a gis gars yi xale yi ñu ne waa GRTS ñu ne ñoom ñu dem regional office complaint bi leen ko fa indi waaye education. Not we, are, we, we don't have any right to come to GRTS. So let's go to the Minister of Education. After we, after we, after we go back to us, if we settle problem, we go back. If they, yes, yes, not settle our problem, we will not go anywhere. Strike it. Sorry. Yeah, yeah, yeah, yeah. That's, that's all, that's all. No, no, no, no. Let's go. That's what a good one. Please. But we are not learning. Please. Please. Of course we will learn. Please, don't tell me. No, I'm doing my work, madam. I'm working with the Gambian Talents Promotion. This is my work, madam. Yes. This is my work. How much is this, huh? No, no, no, no, sir. I am doing my work. Yes, I'm, yes, I'm doing my work. Any camera person can stand. I have right to come to do my camera. I work with the Gambian Talents Promotion and register online television in the Gambia and also in America. Yes, I have right. I have right. Yes. If you are not sitting, you will not get you. Yes. waaw yéen a gis mbokk yi Gambia lii la may caméra di wane li nga xam ne mooy liggéey bi ma fi am ñu ne ma waruloo koo def waaw man nag ab journaliste laa boo xam ne yàgg naa si fiir bi xam naa li nga xam ne mooy liggéey bi soo foog rek ñu def suñu liggéey taxawaluñ fi kenn ñëpp fi taxawal You want to

waaw yéen a ko gis Gambia xale yaa ngi nii waa GRTS ñu ne ñu dem ah, gis neen ay administration yi nga xam ne nag den wax ne ne buñ fi caméra buñ def ay thing so ñu xool xale yi fan la ñoo dem ak fan la ñoo mujjee su ko defee ñu mun a dem defe ji li nga xam ne mooy suñu liggéey waaw waaw yéen ko gis Gambia nii len leen indil na now nag ñu ngee dem ñu ne xale yi fii nekk sport bi nga xam ne foofu la gars yi war a defee li nga xam ne mooy strike bi. ñooñu bawul. waaw ñii ñii gars dara. gars yi amuñu ñëw su defee lii bawul benn. ñii booy ñii boo leen ñun ah. principal bi soko waye def te wala so la bëgg nga ñibi principal bi wala dewa de jangu de jangu jangu so la bëgg nga ñibi wa furi kan ka dañ ko dégg ndax E mwen a fè adeles, e mwen a fè adeles, test test Soljèl fè adeles test E mwen a do, e mwen a do, e mwen a do E mwen a do, e mwen a do waaw bu boobaa rek dinaa read yéen a text message yi nga xam ne moom lañ fi jot a dégg ah, ki nga xam ne mooy Yunus ah, Sow moom mi na sister do your job well ah, kon nag lii la ñoo def ñun Gambian Talents TV bés ni ki tey yéen xale yi di leen ñaax rek ngeen dem di seetaan Gambian Talents TV din fi ñëw ku wanal ñu li nga xam ne mooy happen ci society bi yéen a ko dégg ñu ne bu ñu caméra waaye soo xamee sa liggéey da koy def ba mu askan bi yéen ne yéen a ñooy seetaan yéen yéen a tax ñun ñu jóg di def liggéey bi kon nag nañ dem si kanam waaw Hey, oh, Maria, me, my name is Buwagar. Um, I live in there. waaw kon nag ñoo gis xale yi rek ñoom ñu gi taxaw ah, fi nga xam ne mooy MDI road bi ah, ñu nge xool ah, fan la yi di war a dem si fan ngeen naa dem si nag. waaw mooy Tuddi region Tuddi region. Tuddi region waaw kon nag ñoo ko dégg kii bi nag ñu ngi dem Tuddi region. jaate baaxul jiitu bi moo baax. और मैं अगला गन्ना के हमें ये ना कर देगा हाले We must go! We must go! We must go! We must go! We must go! We must go! We must go! waaw right now xale yaa ngi nii si kaw tali bi ñoom nag ñu ngi say fu mu nii ñu ne ñoom dañoo dem fu nga xam ne mooy regional office ah, su ko defee ñu seet lan la waa regional office di lan amal Ah, so, you're school with? Me, I'm a counselor. You're a counselor. Okay, how do you see this uh, move by the students? No, it is not difficult to move our teachers, our qualified teachers, and bring other teachers whom you know that we didn't even know them, how they think. So it is so difficult. So we, are, we need our teachers back, and we don't need in, we don't need our this principal here. We need him to go. We need him to go far. We need our teachers, our Yes. Thank you. So at this moment, uh, what is the school doing towards this? We are, we are doing we are striking. Now we want our teachers back. We are going to the general office right now. Okay. Let's take our teachers back. Take them to another school and take them to another school. That will not even happen in this school. Yeah. They want to take other teachers here to teachers and we are in they have to bring our teachers back and the principal will stay in this school mm. or, or we kill ourselves. We are today, we will die or the principal will die. Our 17 teachers, 17. It's not even 10, but 17. Can you imagine that? So you, you want to say that how many teachers are going to left in this school and how those teachers that are qualified and the teachers that

yéen a ko gis xale school gis nga ñeena yi sax solun daala yëpp ku mer bi rek ku wane li nga xam ne loolu la gars yi mu ngi mel ne dañ ko riitee wan du nga si affiche bi mu tëj booba nangu ta jeena dafa ruus yéen a la yitteel teacher principal dañ xalaat ne mag la moo tax Can I ask you a question? How can we learn without teachers? We cannot learn without teachers. And our 17 good teachers, they want to post them in person. How can that be? That is impossible. But I'm in no school. It can happen. We didn't get don't teach us. You have to teach us. They have to teach us. Because we are the people we need to take care of this. Because they don't know whether the president will come out with totally new school. They don't know. It's only God who knows. So let them teach us. Because we are them. They need their time. Mr. Tem, Mr. They are them. The teachers used to teach them. Right. What about us? And Mr. Keta, I know he had their children. And he, he, the, the, the children that the school are there, they used to take them. What about us? Mr. Keita have to hold us like his kid. But he's just behaving like us. He don't even have actually in his body. What is the meaning of this? Mr. Keita, if I go there, I know today they will take me to police. They will take me, take me to police. Ah! now. beg I beg 300, 300. And I want to eat the money. I want to eat the money. Hold on, hold on. No one get money. No. Y'all don't want to hand them. Ni, y'all want to eat. Y'all want to eat. Waaw yéen a ko gis fu mu regional office waaw su ko defee rek Gambia nii la leen Gambian Talents amal kii di Lamin Jatta mi ne go to State House ah kon nag yéen a ko dégg Lamin Jatta moom nag loolu la wax xale school yaa ngi dem ne ah. wala seen tanki neen yi waaw ñenn yaa def tanki neen. yëpp si soona bi. yëpp yaa ngi ne bu ñu waxal ñu def ko su daale yaa ngi ne. dañ doon dugg sali bi sax. su ñëwee ñu dañ doon dugg sali bi sax. Wow, ndi mbatri gambia i think ñu li len amal ah bu boba rek ah, dinañ wara Even ah. land lumelni. From nega situation mangi tense. Wow, situation mangi tense. Gaay ngeen dem fi nga xamne moy regional office suñu collègue ah, dina fa nekk dinañ leen file report waaye balaa ñuy dem rek ñun ah, dinañ dellu si office bi waaye tey si news bi si Ibrahim Gueye bi xibaar yi rumé réew mi dinañ leen indil xale Talinding School lan la gaay wax ak fan la ko gaay yi jamono ji nag Gambia Lila. xale yaa ngi frustrated ah, fu mu nekk principal bi ñoom ñu ne bëgguñ seen principal waaye kaay leen ñuy dem xale yi kaay leen ñuy dem ñu close rek ak yéen kan moo bëgg a wax. man all right ah, na def. Ah, fu mu nekk ñu ngi close sundi report bi nit yaa ngi leen a déglu ñu ne dem bëgg a xam rek yéen lan ngeen lan ngeen fokk si li nga xam ne moo xew tey. waaw su nekkee soose nga dégg laa ko soose au anglais boo boo si dégg rek all right Wow. aha sis how are you what's your name Ilan Ilan Teps all right uh, I want to know uh, what is the fate of this uh, particular um, demonstration that you guys are doing. this one jigéen si nangu ñu nekk ne ah jigéen si nangu nañu fee seen saral loolu moo tax ñoom dañu bañ a jàng loolu moo dimbale naa leen si nangu nañu fee seen saral loolu tam dëgg la waaye tam principal naka la mu yóbbu ay gars police ba pare nangu nañu jàngal loolu moo dëgg la loolu yóbbu police ba pare gars tam mu taxaw mu ne kum ne mu jàng ku mu neexu mu dem ñibbi ñu dem yéen ñibbi ba pare ñu di principal dóoraanguñ ko ni nga principal. de nag kii a wax dóoruñ ko di weer mu koy léegi kan moo doon waa xaar leen nag am na ñoo xam ne léegi leen jot a dugg si si Gambian Talents TV bi télé bi mu ngi nekk a def nanka nanka kenn kenn mu wax a ah, su ko defee ñit yi xam nga ñu nekkuñ fa woon yéen yéen a war a wax xibaar bi su ko defee ñoo ñu dégg ko suñ mbokk yi nga xam ne ñu ngi si diaspora bi ñu ngi si bitim réew ñëpp a ngee dégg seen jooy ah dañ bëgg a rek ah, lii naka la ileen nga ne principal bi da ngeen dem ngeen wax ko ne mu def ñu def baaxul ba pare moom tam mu ngi mer dem tëju si office am naka ngeen ko waxee ah man maa a all right so right now uh, principal we are bi ngeen a génn uh, di dem strike I'm going to yëgle. daa yéen ñu vidéo di you xool. teacher you yaa leen a vidéo

ma do you ba about this ñii dañu war a jàngal man de loolu laa si gis. <laughs> all right ah, sis ñu ngi la déggoon yaa ngi leen wax ah, bu boobaa rek ñu bëgg a xam ah, right now foog nga ne teachers yi dinañ delluwaat si school bi seen strike bi. dañ bëgg a teachers yi ñu dellu suñu dellu te ëllëg ni la ñoo infirmière eh, fekk tasi fekk tasi ñëwuñ duñ bàyyi lu ñoo def ni tasi lañ soxla ñu jàngal ñeen ñu ngeen dugal ci constant gisul benn ci ñu tasi lañ soxla dañu tasi pour ñoo ñu jàngal ñu ci tasi lañ xam nañ lañ min léegi grade 9 grade 9 ci li ñoo def right now grade 9 da ngeen ngeen strike right now right now ci ndefu dé da so fini sa mu ne ya baña study ya baña dem fekk du lool nga ñoo indi ay fi day nga fekk 150 ñu nga dem study duñ lay jàng dara ah, billahi ñu ngi taxaw ci class ba ñu def assemblée le mi digi la principal bi lum ñu def moo ñu ndax man toujours da def ko ci ci tay sa den taw sa ni ga xam sa lu ne wax mu ne man nangu taw sa ni ga xam sa lu ne wax lu ñu wax baaj rek baaj ñu ne baaj ñu baaj ñu baaj ñu ne baaj loolu la sa way jàng nga dem ñu jàng nga dem man ali tout principal bi xam ko sa ñi ma daral bo da gàcce li ha gàccam ko ta man kon nag yéen a ko dégg ah bii gaa gaa ma ಸುಗೇನು ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಯೇ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಯೇ waaw mbokk yi lii ngeen dégg lii lañ leen indil ay dama bàyyi la rek nga tàggatoo li nga xam ne nag loolu la askan dafa mel ni yeneen xale yaa ngi roba sis how are you how are you you okay uh, so where are you guys from we are from Giates all right. And what happened there? me, I, I, was not there when, when they, me, I passed and to the Okay. So right now, where are you going? I don't actually know where I'm going. All right. So do you think you guys will go back to school? Yes. Of course, when. So when are you? Who insult you? For me. <laughs> Wow, uh, yeneen xale yu bari ne ten caméra bi <laughs> ah, bu boobaa rek ah. On Tuesday, I went there, me and, me and my friend. We are asking him, what is the problem? He he told us that that is not our problem. If you cannot sit in that, inside the classroom, let us take our bag and go home. And see, that is not the right he, he what he should, he should tell us. That's not the right he should tell us. Mm -hmm. We are fighting our right and we want our teachers back. Uh, mm -hmm. Yes. So do you think that um, this um, demonstration you guys are doing, will it have any impact on you? Yes. yes. yes. Like how? Of course. Because I think you guys went to GRTS yes. and there was no solution. Now you are going where? They are going to office of regional office. Regional office. Okay. All right. Thank you very much. Who have want to say something? Okay. No. We are fine. Thank you. You are fine. Thank you very much. All right, Ida. xale yaa ngi nii ah, gën a si leen démonstré di wane seen naxar ngir si teachers si lu gars yi def ah, principal bi kuñ gën a xamee si Mr Keita di génne teachers yóbbu leen si problème bi nga xamante ne gars yi nekkuñ leen di leen jàngal comme gaa yi niñ ko waxee fi mu toll nii nag gars yi demoon nañ jiyaatees waaye jiyaatees daaxal nañ leen utaluñ leen benn solution towards their problem gars yi ñu ngi ne jëmale regional office ah, ñoo ko gisandoor ah, ñoo ko déggandoor ah, xale yi nag ñu ngi ne dem regional office parce que fi toll nii dëkk bi is very xale yaa ngay génn ñoom tamit ñu ngi wane seen naxaar si woot towards seen principal bi lu mu leen def si ak ticca si neexu tamit si xool nga xëy suba jógee sa kër ñëw school pour jànga ticca bi toog fële di mekko bu nga naa ko def du Thank you very much, Aida. That was Aida Kebe and myself, Father Samba. We were live and direct here at uh, MBI Road. Uh, today we have seen the students of Kalinding Upper Grade School coming out in large numbers to say that no to Mr. Keter, who is their principal. They said that the principal does not feel their pain. They said that the principal does not know what they are going through. And at the end of the day, they want the principal to know that they are the future leaders of the Gambia. They should be our future ministers president, ambassadors, and the list goes on. So today we are live and direct here and we hear the pains of the students where, you know, they said different, different things that is affecting them and they are hailing towards the regional office. They went to GRTS to look for solutions. But then GRTS in court said they cannot, you know, give them the opportunity get into their office. That's not the place where they should lay their complaint. Their complaint should be laid at where, you know, it's the regional office. So either that was what we have for them, but but I need them that either uh, situation became tense na law because then you may find xam ne mooy suñu office Westfield uh, leen doxee ba uh, fi nga xam more nag mooy MBI war a them coming? fi nga xam regional office mu nekk loo have no lu garaaw I ay da ba one thing you ma address Gambians yi ñu ngi lay journalist yi it's so because dem institution bi mel ni GRTS foo xam ne foofu la uh, journalist yi sampi baax foofu mooy këru journalist yi know may um, caméra ñu ma wane foofu waruma waruma teg caméra bi seen kaw loolu nekk loo xam ne lu ñaaw la képp koo xam ne da nga jóg ne da nga wax ak media bi te parewuloo ko wax ak media bi demal sa kër toog ku bëggut a wax ak media bi mu dem sa kër toog we Gambian talent we are part of the Gambia media at the end of the day ñëpp yi nga xam ne ñoo ñooy seetaan si diaspora ñun suñ leen génne lu tey ñu bëri duñ leen ko génneel kon ñun ñooy boppi xibaar ñun ñoo indil ñu ci lu gaay war gis ñun ñoo leen a indil lu gaay war a suñ ko defutee keneen du leen ko defaral buñ ko demee di def di dem interview benn jigéen ñëw rek toog ne bu leen ma teg caméra you don't have the right to camera me. And I told her, now I have the right to camera you because man, I am from a media house. And at the end of the day, I have my press card. Anywhere I go, I go with my press card. We are here, myself and Ida, we have our press card. Anywhere we go, New Gambian friends, we are fully engaged in the Gambia. Anything loo xam ne dafa soxal askan dafa sonal Gambians ñun dañ leen koo So xale yi suñ jógee di jooy ñu we have the right to go out to society bi ask me to that question. so Ida, na tey ci xibaar yu réew mi dinañ leen indil li nga xam ne moo am si biir euh, problème bi nga xam am Ida, da yaa ngi gis suñ caméra bu maan bi behind the scene di nguy mu from office with the NDI, three camera bi, ñu ngay def commentary. You know, it's so sad. Yaa ngi three camera bu share, the next minute camera bi sa dafa neexale bu ko daanu because yaa ngi gis xale yi naka lañ seen naka la naka la uh, things si tense. But at the end of the day, we want people to see and feel the feelings of others. Why so def sa liggéey blame games bu di agi ak yow dañ ko war a bàyyi. school yi ñu ngi mer sen principal yu mu ku na a jànga jànga ku munut a dem toog sa kër nga dem ñibbi ñu doo xale yaa ngi complain ne seen yaay dañ dee wane ngeen di fiil exam and then exam bi soo leen ko fiilee blame yaa ngi ñëw fii ak fële soo mbokk yi lii lañ leen amal you know let us change our habits as Gambians ñu try ñu uh, change li nga xam ne mooy suñu jikko su ko defee ñu gën koo defar mu gën a rafet soo defutee ay da kan mooy def the question bu boobaa dina ba pare Fatou Samba bëgg naa ñëw foofu noonu lay comme GTS ñu la gay def ak ñeneen ak ñeneen ñu gay nekk def journaliste dafa tax xale yu bëri ñi nga xamante ni am nañ euh, intention pour nekk journaliste daf leen a discourage parce que fi mu toll nii youth si bëri ñu ngi come up ñu ngi ñëw ak talent ñeneen suñu ñëwee journaliste laa bëgg a nekk ñeneen ne naa journaliste Gambie ni nga xam ne respect wuñ leen te loolu nag dañ si war a bàyyi xel bu baax liggéey te it nga jàng ko mun ko ah Aida walaay ku te nga xamne ne amé sa press card te nga xamne sa street bi la ñëw ayda you are you are free to do your job way uh, nuñ la nuñ la nuñ la adresser ya, dafa tax ñu né ñu ragal ñu get discourage dañoo dañoo ragal mm-hmm. parce que fil bi dafa nekk lo xamantene ni it is it is full of risk da mm-hmm. yow no doon tontu wante bo sax nga am kenen ku la dóor wala kenen ku la slap comme ñeneen journalist yu gayni nekk def loolu dañ ko wara a xel bu baax journalist bi leen jox li baax taxul ne ñoom gay den ah, ñàkkaluñ def wala xamuñ buñ def li leen la dund dundiloon nak tey gis gàmmee jërë ngeen jëf xibaar yi rime réew mi si kanam tuuti rek at four o'clock xibaar yi dina nar a indi toj toj bi nga xam ne moo xew si biir Gambia xale school yi mer neen waa talim bi ñu ne no moo Mr Keita no moo euh, teachers yi ñu leen a bàyyi ñu nekk lu leen ne teachers yi ñoo nekk si classe yi di nekk xale yi a la waxee ne amul taal yooyu yëpp xale school yaa ko wax bu boobaa dinañ tam demee si teachers yi ñu indil euh, side of the story jërëjëf